Mballo Dia Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah, euh, di fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal kii di secrétaire général bu euh, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale muy SUTSAS coordonnateur également bu And Gueusseum tey ñu dégg ci euh, mbiru Boubacar Seye jàpp giñ ko jàpp ñu bëggoon a xam lan moo tax ngeen bëgg ñu bàyyi ko. waaw donc ànd ak sama président la am ak ay vice président donc euh, euh, donc man président laa du ma coordonnateur waaw ah, léegi nag euh, affaire kii bi Boubacar Seye Boubacar Seye dafa nek benn kilifa buy liggéey ci affaire immigration mm-hmm. immigration maanaam ñi nga xam ne ñu nekk bitim réew di daan seen doole mm-hmm. bon nekk na ci expert bu bu ñuy ràññee ci àddina bi yëpp Euh, ba na nag euh, euh, bu fekkee ni am na ay wax yu mu wax ba tax ñu war ko jàpp bu fekkee ni li ñuy wax dañ ko dañ ko ba noppi dañ dañ ko woo pour mu ñëw wuyu si mm-hmm. bu dee ñëw pour mu wuyu si war nañ ko bàyyi ba mu agsi bu ñu agsi ñu convoqué ko daal koy laaj daal di wax bu dee def na lu mu warul def bu fekkee dox lu mu war a def ko bu fekkee ni war ko jot a bàyyi mais ñu ni ñu naqarlu rek li ñu naqari mooy kilifa gu mel noonu nga ko pour ça parce que deful ñun li tax ñu war ko jatank comme ça aéroport mu wàcc ah jàll ko yenu yóbbu ko police aéroport yebal ko ko yóbbu ko gendarmerie yebal ko xëy yóbbu ko police ak parquet indiwaat ko ñun loolu moo ñu ci metti mais du leen parce que. kon amul nu ngeen jàngatee arrestation bi amul benn forme de communication bi nga xam ne mën ngeen ko déceler à travers arrestation Boubacar Seye. wa mais liñ ci deselee liñ ci deselee moom mooy daal niñ ko jàppee daal jàppin wi daal ñun moom moom la ñu naqarlu waaw wante ñu nekk ñu naan moo def deful ak li deful lu mu ñu nekk ñu foofu xëy na am ñu lijjanti loolu. Hmm. wante daal niñ ko daal bu ñu daal ku mel kilifa bu nga soxla ko pour mu wax la li mu def ak lu mu woñu def jarul nga koy euh, teeru aéroport deux heures du matin nga xam ne mënul wax ak avocat mënul def dara te loi dafa wax ni avocat daf la war a war a war a war a bu fekkee ñu ngi lay ñu ngi lay déglu mm-hmm. donc indi ko foofu euh, police commissariat commissariat aéroport jële ko fi indi ko ci euh, sûreté ci section recherche bu gendarmerie man sax dimanche matin xëy naa dem seeti ko na ñëw ma ma ma ko foofu fu mu fu mu teewoon noonu gendarmerie bu bu Colobane mhm. mais pour ñun loolu moo ci nekk bu ko jàppee daal ñun moom la ñu naqalu mais li ci des mbir yoon la wante nag bu ñu sañoon ñu ñu ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko parce que li mu représenté moom nekkul adversaire wu gi au sax partenaire wu nguur gi la daal bu ñu sañoon daal ñu bàyyi Mhm. wax ci leneen muy comité euh, pour la vaccination fii ci Sénégal ñu xam ne nañ ko wala sax taxawal nañ ko ndax yéen ñi euh, waa travailleurs euh, de l'action sociale et de la de la santé et de l'action sociale boole nañ leen ci. non boole wuñu ci tey ci lañu wax ni danañu woo pour ñu waxtaane mbir mi. Mhm. directeur directeur général des AMAD santé. Euh, docteur Mari Xemes moom moo dem mu ni tey daal bu sañoon ci booru quinze heures mu tase ñun daal ñu expliqué la mooy stratégie bi. Mhm. wante ñun euh, li ñu naqari mooy léegi sax dajale seen i balance ba décider stratégie dañu woo. parce que mënuñu wax stratégie bu ñu ump wala bu ñu mënul xam parce que ñun dañoo nekk par exemple SUTSAS syndicat unique d'état de la de l'action sociale. Mhm. am nañu boo xam ne lu commencé ci professeur agrégé ba ci garçon de def naa bu ñu def yu mel noonu boole fa ñuy nase ak fa ñuy noccee. Mm-hmm. parce que bu njëkk ba déjà ci plan bi comité de gestion bi mu siy fa bokk mais terewul de février lañ boo ñëw mars di ñu def communiqué di su nañ ngeen woo ñu ñu ci wax suñu xalaat donc xam ne dafa doo ko doo ko beddi wante xam nañ ñoom seen gis-gis la noonu la toll mais terewul ñu xam ne ñu population mooy tax a jóg te si nekk di ci bay suñu waat donc loolu la léegi nag bu ngoonee xëy na ñoom danañu wax la ñu nar lan la ah, ñu jéem a seet aussi ñoom li ñu wax ñun nan lañ ko gisee wante li am solo ñun suñu wàll bopp ànd gësëm SUTSAS si boppam euh, invité na euh, pour benn vip webinaire comme que mënuñu def conférence mm-hmm. webinaire mm-hmm. jël ay ay ay ay ñi nga xam ne kilifa yu mag yu mag la ay borom xam-xam yu mag ci affaire vaccination professeur Tandakha Dièye nga xam ne au plan africain au plan international dañ ko xam ñi fiy wax financier moo leen jàngal kooku dañ ko tànn tànn ñeneen ci le plan de la recherche ak éthique. Hmm. ñu e mbir mi ak ñeneen sommité yu nga xam ne nii danañ waxtaanee vaccination e ñoom avant ñuy wax sax ñun déjà commencé. kon bu ma la déggee ngay wax ku leen ci woowu sax di ngeen ci jiitu. voilà ñu wax ñu wax parce que ñun nekkuñu pour ñoom ñun population bi lañ fi nekk te dara mënuñu dévier ci loolu. ba tax na nag loolu moo doon li ñu naan suñu par contributive ci ci ci débat la vaccination parce que coow li bari na lool. Hmm. tey ji euh, ñuy wax travailleur euh, de la santé et de l'action sociale ngeen jiitu ci xeex bi euh, ndax tey matuwaay yi mat te wóor ñu ngi ko jébbal ñooñu li nga xam ne ñoo nekk ci kanamu xeex gi. en tout cas dëgg neex yàlla bi ñu commencé bi feebar bi commencé am na manqué manqué yu bare yu amoon ci hôpital yi ay lalu réanimation yu manqué woon ay respirateurs yu manqué woon ay centrale d'oxygène yu nga xam ne xëy na xëy doxuñu woon noonu. donc lu bare marqué woon na mais wax dëgg yàlla am na jéego yu bare bare bare bare yuñ ko def waaye feebar bi moo nekk a bu doy waar boo mhm. ñu ëpp matériel sax ñun mhm. ba tax na nag am na ci matériel de protection yi ay gants ak ay kii yooyu fi yuuxu ba lu bare indi woon ko fi ci première vague bi mhm. waaw mais ci deuxième vague bi daal lu bare mi ngi commencé sooxe affaire masque ak affaire gants ak affaire ak ak yu mel noonu loolu moom nguur gi na ci mën wala ci mën a jóg bay ci waaram bu baax a baax parce que euh, fu mu nekk nii feebar yi dafa gën a mën gën songaate cas yi gën a bëri même personnel yu bëri sax commencé nañ dem ab feebar bi. Mm. personnel yu mm. nañ am di am feebar bi donc euh, loolu nekk no lu nga xam ni war nañ ci mën def ay jéego. waaw loolu moom laal ñu ngi koy ñu ngi ciy ñaax gouvernement pour ñu gën ci jub. et justement ci wàllum riposte nan nga jàngatee waat deuxième vague bi Sénégal taxawaayam. waaw riposte bi gis nga gouvernement bi moom ñàkk ci ñàkk yi léegi la la yaakaar parce que méthode barrière yi donc kii ñu ko liñ liñ na moon amuñu ko ci loolu tamit mën nañ ko expliquer parce que euh, koo xam ni boo ko nee tagal takkal masque du takk masque boo ko nee nañu dendoo du ñu dendoo marché yaa ngi ni pousse ay nit école yi tëju ñu bus yaa ngi fees del euh, bu ñu def fii am na couvre-feu feneen fu ñu war def couvre duñ ko fa def mm-hmm. donc loolu indi na jeexi a ah, ba tax na ñàkk yi moo fi des mais ñàkk yi aussi bu fi nekkee tamit du ñàkk yi moo ñëw rek régler problème ñu bàyyi méthode barrage yi ñàkk yi méthode barrage yi waaw donc moo tax aussi il faut que ñu gën a mën ci loolu te approche communautaire bi ñuy wax tax na ba léegi feebar yi au lieu que mu nekk hôpital léegi ci centre de santé poste de santé ak ki kër yi la ñuy la yi nekk mm-hmm. mais loolu nag dafa dafa dafa dafa soxla aussi non seulement personnel mais dafa soxla aussi ay ay ay yu mat ci communauté bi ñu war a taxawal communauté bi nañu wax ak ñoom nekkul problème bu commandement nga nekk ci kaw rek di ci suuf di def ñi a déggoo et puis ñi si somb mbir mi ñu gën leen jàppale protéger leen ensuite motiver leen parce que balaa ñu démobiliser wu mooy ay ay agent de santé communautaire ak mm-hmm. bàjjenu gox ak ay carte en santé communautaire dañ ko soxla mm-hmm. problème communauté problème de communauté la foofu lañ ko mën a waxtaanee foofu lañ ko war a mën a nase ak waaw ah, terewul nag vaccination bi tamit ñu ñu ànd ak moom mais nag nekkul rek bu ñëwee ma ñàkk nit ñi feebar bi day dem kenn lu defati masque yooyu loolu loolu amul. et ci approche communautaire boobu ngay wax ndax mbir yi dina yomb ndax tey euh, askan wi ñu ci bëri euh, comme nañu déggee ñi ñi ñuy communiquer muy spécialiste yi sax si seen biir ndax am na ci xëccoo ndax tey dina yomb nga dalal seen xel ci wàllum vaccination bi. non du yomb du yomb parce que déjà vaccination ci àddina bi coow li am na dëkk bu nekk am na ay coow. Mhm. mais dëkk yi nga xam ne xëy na seen coow moo gën a bari ñooñ ci gën a ñooñ ci ñoo si a tare même vaccination bi biñ ko indee réew yi nga xam ne xëy na bari ñu coow yëpp ñoom commencé nañ di vacciner jàpp seen jàmbur. Mhm. mais réew yu mel ne France ak ñoo ñoo nekk ci Europe commencé di di di di ñi di ñu ñàkku wante li ci am solo yëpp mooy dafa am yoo xam ne ay waxi biir la. technicien yi ñoo koy war a seq ak seen biir ba ñu manko ci ba pare doo ko génn ci biti mu nekk waxu biti hmm. maanaam li wax nit ñi ak li ñuy wax nit ki waaw maintenant nag bu dee waxu biir waxu biti yëpp mi ngi ci mbedd mi mais kenn mu moo am dëgg kan moo amul dëgg hmm. waaw surtout que nag comme ngi ci ginnaaw boo waxee lii ñu boo waxee lii moo tax ah bon ñii ñii ñii ñuy liggéey vaccin bi sax bu ci nekk wóoluwul moroomam wala wóolu vaccin moroom wala vaccin bi mu def moom moo bëgg gënal vaccin bi moroomam def donc yu mel noonu dañ ko war a waxtaanee ci teel malheureusement nag tardé nañu bu baax a baax ci waxtaanu vaccination bi te mënuñu ko njëkkee bu yàgg ñu mën ci am moo tax ñun suñu séminaire bi euh, loolu aussi nekk na perspective bi pour que ñu xam lan moo tax mu gaawee noonu boo war a mën ba war a mën a mën mën a mën a aar nit ñi te ba mën a wan a arrêté feebar bi parce que ñun suñu problème yëpp mooy nañu fexe ba feebar bi taxaw waaw lépp lu ñu wax te taxaw lu ñu feebar bi nit ñi duñ ko fekkee et économie ñu ko fekkee parce que balaa nga ne naam nga def parce que nit ki mooy indi économie mais économie indiwul nit. mu mel ni takk der yi dañ di associé ci lii di stratégie bi ndax dina am lu mu soppi ci euh, lii di vaccination bi déjà ci askan wi. waaw mais euh, force de l'ordre yi mën nañ ci jàpp mën nañ ci jàpp parce que li ñuy wax vaccination ak logistique la et puis bëgg nañu aussi mu gaaw bon comme que personnel santé yi lim bi matul. bu dee am na ñeneen ñu wër ci mën a mën a jàpp jàpp ci aussi am na pour ñu lu ñuy wax problème logistique maanaam vaccin yeeg bu dee am na ay ñu war a war a denc mbir mi lool tamit mi ngi ci parce que bu dee fi ko war a denc bërëb yooyu moins quatre-vingts degré la te amuñu loolu bu dee armée mën a jàpp ci loolu. Mm-hmm. même mën a mën a jàpp war a mën a jàpp parce que armée euh, dañ ko daan mettre à contribution ci yu mel noonu. ñun mm. gisuñu problème mais mais niñ ko communiquer moom moo xaw a soxe. parce que bu ñu demee ni vaccination bi day am dañuy def dañ ciy boole armée population dañ naan ah kon de armée dafa war a wàcc pour di jéem ñu forcer mm-hmm. alors man ci sama xalaatu bopp xëy na demewul noonu mm-hmm. waaw mais ni ñu waxee vaccination bu bare waa boole ci armée dañ naan kon nit ñi dañu leen bëgg foog ni ñi war a ñi war a ñàkk dañoo bëgg a banque seen loxo ñu ñu ah, ñu ñu ñu ñàkkaloo yëpp aussi ay jiix jaaxal lay andi. Mm-hmm. waaw mën nañu armée am na liggéeyam ñun am nañu suñu liggéey nañu boole liggéey bi mu nekk benn pour le service des populations mais nañu ci jokkoo ku nekk xam lan lan nga war a def ak nga koy def loolu moo am solo si ñun. Mballo Dia Thiam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw ah, jaajëf réew mi. Mhm. ngay secrétaire général bu SUTSAS <laughs> donc président de And Gueusseum